ci seen ndigal ci la jataay yii di amee ni ko sëriñ Cheikh waxee di ci yeete di ci jàngale di ñaan suñu borom mu dëgëral leen sàmm leen beral nu yoon ak daayiratu muqaddamatul xidma ci njiitul sëriñ Afee sa al ci seen yittewoo tasaare njàngalem lislaam ci ron sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ba tax jataay yi ci sonn di ci di ko yaatal kon yàlla nag suñu borom sàmm leen dëgër leen maa ngi nuyu mbokk yi dégg sama kàddu yépp di la nuyu yow sëñ Cheikh di am mbégte ci ànd ak yow jataay bi di ñaan suñu borom defal lu ci tawfiq bi di njëkkante ci laaj yi nga xam ne ñoom la fees mbokk yi ñu dee laaj ñu ndax dagat na jàngee alquran ci ay téere bu euh, jërëjëf Serigne bu fekkee ne daa jublu di jàng téere yooyu jàpp ne alquran ngay jàng suba déedéet maanaam sañis naa jëfandikoo téere yi ñu tekki ak tey téere tafsir la yor kon alquran man gis na koo tekki ci arab waaye gis na ko tekki it yeneen làkk waaye su nag alxuraan ja taxoon ñu wax nga xam ne kenn du ko laal te laaboo doonatu ko ndax li ñu xam ci boroom xam-xam yi wax ko mooy téereb tafsir nekkul am mushaf ñi nga xam ne dañuy tere nit ki mu laal ko te jàpp naka noonu téere boo xam ne alxuraan ci nekk ñu tekki ko ci weneen làkk moom itam wàcc waay wu la yor kon manis na koo jariñoo ngir dégg alxuraanul karim suñ kem kàttan waaye nag deesul jàng loolu jàpp ne alxuraan ngay jàng kon maanaay alxuraan ngay jéem xam ñi nga xam ne boo jëloon ab ayu alxuraan tekki ko ci yeneen baat ci arab yu gën a woyof loolu sañuy su ko jàng bu doon julli wala ngay jàng alxuraan yi nga xam ne jëmmi jàng baat yi jàng yàlla su boobaa nekkut ko waaye nag sañ nga koo jëfandikoo ngir xam alxuraan maanaa yi la yàlla may ci nga mën ko cee dégg nga dégg ko ci loolu la boroom xam-xam yi wax kon téere bu ñu tekk ci weneen la ak atteb téere bu ñu tafsir kon yorut warma ji mushaf bi nga xam ne alxuraan jépp ci nekk alxuraan képp ci nekk bokkuñu wàccuwaay waaye nag mënees na ko jariñoo kon ku doon julli it sañu jàng lool kenn du wax ne alxuraan dañ koo tekki ci weneen làkk sooy julli di jàng loola donte maanaay alxuraan ngay jàng waaye alxuraan moom noonu mu rote ci baatu yaxub arab bi noonu lañ ciy jàmm yàlla kenn du ko sol jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne laaja ji nga firi ñu ko sëriñ bi suñu borom di ne awlaa laka fa awlaa summa awlaa laka fa awlaa ayaxsabu insaanu an yutraka loolu de li ci borom xam-xam yi wax ay wax yu wuute la waaye sorewuñ am na ñuy wax ne awlaa laka tëkku la xuppe la Euh, wax nañu ne ci abu lahab la wàccoon ci abu lahab euh, awlaa laka dañ ko firee ne xabar yi mubtada mu ne xasaf la al azaabu awlaa laka bu jàpp moo gën a yey wala moo gën a jege yow daal mbugal moo gën a yey ci yow jumla bi mooy awlaa laka li ci topp dafa ñëw ngir tawkiid di ko euh, am na nag ñu wax ne awlaa laka mooy mbugal jege na la xaarabaka al azab fahzarhu ñu ci téere tafsir noonu lañ ko firee mbugal jege na la moytu ko dañuy wax ne arab daan wax ne awlaa li fulaan suñ ko masaana wax ñaan yàlla la danga koy ñaanal yàlla lu metti aw naqar aw tiis dal suñ masaa wax awlaa li fulaan mooy yàlla na alku wala yàlla na ko musi dal ñu ne nak manam moy waliyaka al makruh euh amna nak tawkiit gi ñu ko tawil ci re bu ñek bi moy awla lakal mawtu de jege na la fa awla lakal azab fi al qabr thumma awlaa laka ahwaalu yowmi alqiyaama fa awlaa laka adabu naar xam ne yépp mbugal wala toskare wala metit ñeel na la wala jege na la bi ci jiitu mooy boo faatoo bàmmeel tiitaange ngi penc ak ci biir sawar muy ñeenti rot am na ci boroom xam-xam yu ñu ko firee noonu kon danañ firee toskare ñeel na la am na ñoo xam sa awlaa la bi maanaam waylun la am ñu ne jege na la ñu ngi dégg ci waliya waliyaka al azab mbugal mi ngi ci sa wet na nga xam ne yow mbugal soriwu la waaye jublu wax ji tëkku la ak xuppe goo xam ne yondu islam ci la ci làmmiñam la jaar wax suñu boromam di wàccoon ci moom di ci tëkku abu lahabin laanatullahi alayhi abu jahlin laa jubloo sax ma jubloo abu jahl abu jahlin ay yaxsibu linsaanu an yutraka sudaay day wax ne istifham inkaari la ndax nit dafa jàpp ne dañ koy bàyyi rek mu nekk suda suda mooy ku ñu boyal dee su ko digal dee ko tere amut fu ñu mujj bu ëllëgee mbiram yépp daal nii mu mel layam bu jeexee jeex na ndax nit war naa jàpp lool mooy jaaduwut yellut rafetut nit di jàpp loolu ndax loolu nekkul kon dama dama na yëg ne kenn boyalu ñi nga xam ne dañuy jàpp ne rek ne ñoo moom seen bopp loolu neex def maa sax sama bopp ma kenn wax dara dafa mel ne euh, aaya bi ñoo ñu lay waxal doomu aadama ji nga xam ne daa jàpp ne fu ko neex dem lu ko neex wax lu ko neex def lu borom bi wax ne ndax nit ki ne jàpp dafa jàpp ne euh, dañ koy bàyyi noonu rek mu nekk ku ñu boyal kenn du ko digal dara kenn du ko tere dara amul luñ koy dikk fii boo ëllëgee boo ëllëgee ñu di ko ñu di ko ci àtt mbir yi demewut noonu ah kay doomu aadama kenn bàyyiwu ko mu nekk ku ñu boyal dañ ko indi ci àdduna am luñ ko sant bu ko rafetalee bu ëllëgee ñu fay ko ci bu ko ñaawalee bu ëllëgee ñu fay ko ci. ci alquran ne ci jiite loolu moo moom moo aju woon ci abu lahab ak soxna li ma wax ne aw laa lakk ci abu jahl Euh, fii jiidiha xablum masad dañuy wax ne damir bi mu ngi dellu ci euh, wamraatuhu xamalatul xatab soxna abu lahab si nga xam daf daan lor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak boroom këram lu ñaaw lu ne mu di ko def di jël ay taxas di ko teg yoon bi jaar ngir bëgg mu loru euh, bokk na ci li ko yàlla tëkkoo ne ko bu yomal xiyaamee dafa da amoon caq or bu rafet bu mu daan yor di ko tiitaroo borom bi nag na xam ne bu yomal xamee am na geneen ceen buñ koy ràng xablun min masad min masad ji wuute am na ci maanaa yi ñenn ñi ne xam ne xablun min liif la liif xeetu tàndarma wala ron la woo xam ne dañ ci ràbb dañ ci defar buum buum gi tal te dëgër nee na gu tal goo xam ne mën du dagg moom la e, yeew ci loos wi di mbugal am ñu ne min xablun min xadiid la silsila min xadiid masab jooju maanaam xadit la am ñu waxit ne garab la goo xam ne amoon na yaman ñu daan ko tudde masat buumu dañ ci daan jël ci ay xàncam di ci defar ay buum ak lu mën a xew daal buum bu dëgër gu tar goo xam ne du dagg du ferenciku du rawanciku moom lañuy yeew ci aw loosam di ko mbugal bu yamal xeam kon takkaay yi mu doon tiitaroo ci àdduna bu yamal xeam yàlla dana ko mbugalee takkal ko loo xam ne du ko mën a tiitaroo te ay mbugali neen Eh, ñu bari ci eh, boroom xam-xam yi loolu la ñu wax ne eh, am ñu waxit ne almasad mooy maa fuuti la wa uhkima min ay shay lépp lu ñu lu ñu defar bu baax bu dee buum ñu raw ko raw bu dëgër ba nga xam ne du lañ ci bëgg danañ ko ci mante du yàqu lu ne rek masat maanaam yooyu yëpp tudd nañ ko ci kon daal loosu abu soxna xam imraatu imraatu abi lahab Euh, yàlla dana gàll ci aw loosam bu yomal xeer ne buum goo xam ne ngir mbóol ko la buum nga du dagg te ay métit dangu lay ànd ak waaw sujjóotub alquran ni ko xamee lu ñu santaane la ci sunna seen bi alayhi salaatu salaam la kuy jàng alquran bu dee ci masab Malik fukki barab ak benn ci alxuraanu karim euh, borom xam-xam yi am na ci wax ne li ñuy santaane booy sujjóot boo jullee moom lañ ci santaane subhaana rabbiyal a'la allahumma ighfir li nag am na ay ahadis yu wax ne euh, sujjóot mën ngaa jàng ñaan bi wax ne sajada wajhi lilladi xalaqahu wa shaqa sam'ahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi تبارك الله وحسن الخالقين تكي اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبد داوود على نبينا وعليه الصلاة والسلام كن سبالي على نيان بوغيت سخنا جي سنة ني بغ نان كو سجود سجود القران غا جان كون باي ني باي خيل ني سجود نياري ييف لا سي سانتانا بي سي محمد موي سبال يالا نيان kon xeetu sabal wu ne baax na waaye bii moom rot na ci sunna ñaan ko wu ñu jàng waaye gi ñuy def booy julli farata it wala naafila sañ nga ca def ñaan soxla yi àddina ak alaaxira manees na ko ca ñaan kii moom day laaj mu ne lan mooy àtte boo xam ne da doon nelaw ci bëccëg bu weeru koor dem sangu ji te fóot ay yéreem ba mu laab laabal ay yére waaye kooram dara si ko nelaw ba gént am lu génn ci moom di waral sangul sangul moo koy war ak fóot ay yéreem yàq takku sobe waaye loolu amut ak jote ak koor koor gi yàquwut amul lenn lu cee sit insha allahu taala suñu borom day jahannama hal imtalaati wa taqulu hal waaw loolu de boroom xam-xam yi liñ ci wax mooy xam nga suñu boroom moo wax ne alxuraan dinaa ci alxuraan ne dinaa feesal sawara la am la anna jahannama min al jinnati wan naasi ajmain dinaa duy sawar ba mu fees ci nit ñi ak jinne loolu suñu borom moo ko wax nee na bis penc ban dañuy jël nit ak i jinne di sotti sawar naan xalmin masid ñuy sotti mu naan xalmin masid ci yenn riwaayaat yi ba sunu boroom jël tànkam teg ca bés ko sawara booloo door a fees mu door a wax nag ne doy na am ñu wax ne xalmin masidin ji bu sawara feesee la koy wax maanaam istifham la boo xam ne ci jublu ndax boobu buñ ma dollee dara fu ñu koy def ay li li ñu bari leungal moy wax ne sàkku la sàkku ndal la euh te loolu rot na ci ay yenn téere tafsir ñu wax ne ab hadith sax la am na ci sahihayni ne jahannama la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqul hal min mazid hatta yadaa rabbul izzati fiha qadama am fu waxe ne hatta yadaa rabbul izzati alayha qadama fa yanzawi baaduha ila baad wa taqulu qad qad nee na bis penc suñu boom danay naq yóbbu sawara ci nit ñi gin yi di jël di sotti di sotti di sotti saa bu ñu dugalee mbooloo rek sawara ne ana ndol dolli dolli dolli ba sunu borom mooy mujj nee na jël xadamam teg ko ci sawara la ubbi ko woon tëju waaye day mel ne loolooy tax mu door a fees sax na ci beneen xadis nag ne àjjana moom yàlla day day duy nit ñi ñëpp dañuy dugg ba mu fee ba ñëpp ñi war a dugg ñëpp dugg te lu tax mu fees yàlla bindaat yeneen i mbindeef fecc leen bu dee sawara nag moom day day sàkku ndolleen ñu di ko dolli ba mu ne doy fees naa leen kon yàlla wax dinaa feesal sawara ci yàlla dana koy yóbbu ay mbindeef di sotti muy sàkku ndollan ba mujj borom bi eh, doy doylul ko daf lu tax la ubbi ko woon ci moom tëju mu wax ne doy na léegi fees na la yàlla wax ne dinaa feesal sa wax ju wér la ñaan yàlla suñu borom yàlla buñ bokk ci ñi sawar a feese ci ñoom waaw loolu de eh, alhamdulilahi sant yàlla la yàlla mi nga xam ne mooy mu jiib mooy nangu ñaan ku ko ñaan nanga ko war a ñaane mu nangu mooy boroom dogal yi lépp lu am mooma maa koy sant mu ne moom mi nga xamne mo nu jaglel ci mbaxam du sun ngóora du sun jambar way mbaxam fadlan minhu taala la ñu jaglel guddi gu ñuy tudde laylatul qadr yalla magal lol mbirum guddi gogu ci jamono jep ba guddi gi gën jooni wer te xam lol mo sax ci alquran laylatul min al shahr kon day sant yalla di bekki xewal gi yalla wacce ci julit ni mooy may leen genn guddi goo xam ne boo ko fanaanee jaamu yàlla am nga tuyaabay jaamu yàlla gu ëpp junniy weer moo gën junniy weer la wax moo gën junniy weer na mu ko gënee moom kenn xamul mu loolu yiw rëy la waxal ne yàlla màggal na ko sëriñ bi wax nag ne maa ngi sant yàlla ci loolu mu borom bi def ci xasida la ko la ci la ciy leeral kon am solo laylatul xadar di ci soññee niñ ci gor gor lo waye di kañ guddi gi ak la ci nek ci ay ngeneel loolu nak limi tek moy mooy jaam ñi war nañ ko fonk war nañ ko jox yitté war nañ gor góorgóorlu ndax li ci nek ci ay yiw amu fu ñepp genn guddi go xane wacc na junniy weer te junni weer dañuy wax ne juroom ñett fukki at ak ñett ak nang juroom ñett fukki at ak ñett ak weer genn guddi go go xamni wacc na wala bok moko gën guddi ko fonk la waaw xam nga boroom xam-xam yi dañuy séddale loolu sax ñëw na ci alxuraan bàkkaar di ko tudd ay kabaayir ak i saxaayir di ko tudd ay kabaayir ak i saxaayir euh, dañuy wax nag ni li ñuy xame bàkkaar bu mag mooy bépp bàkkaar boo xam ne xadd da topp dañ ne ku ko def nañ ko xadd mel ni naanum ñoll lu mel ne ruur ay tooli jàmbur lu mel ne sàcc nga xam ne yooyu xadd ak xas nañ yàq dërëm nit nga xam ne xadd da caawaar yu dagg loxo yi caw ay yar yër fat bakkan loolu lépp luñ ko wax rek minal kabair wala boog suñu boroom wax ko ba noppi tekkee ne laanatu laanallaahu man faala kaza lépp loo xam ne baatub rëbb na yàlla rëbb na am na ca kabira la wala mu tekkee ne ku def nangam yàlla mere na ko wala mu ne ku def nangam sawar la yooyu tënk la yoo xam ne boroom xam-xam yi nee ñu bokk na ci yi ñuy xamee ni lii minal kabair waaye nag buñ ko doon tudd ci faram-fàcce yu bari la ñëw na ci ay xadis ñu tudd yenn yi ne ay kabair lañ waaye tënk bi ëpp na lool الشرك بالله موجيد الشرك بالله موجيد إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تكون غبي وانا كبقى لي على سوار عرام تيمون فات بكان شرور دق ودف وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه تقول خان وخان تبكاري ما يربك dokk say way jur dagg leen wacc taxaw woo leen féete woo fi nga leen war a féete te man leen fa féete njabar bàyyi julli lànk bàyyi joxe asaka lekk riba lekk alal jirim ñuy jihaat yoon yàlla nga daw ngir bëgg a dund rek yu bare bari la yoo xam ne ku dellu ci téere yi da ko mën a gis waaye daal tënk boobu mën nañ ko cee sukkandiku mooy lépp loo xam ne xadd da caa war wala ñu toftal ci laana wala xadabullah wala ñu tudd ci sawara digg ci sawara minal kabaayir bàkkaar yooyu nag liy tax ñu déggal ko nit ki mooy tuub mooy tuub am na yenn bàkkaar nag yu noonu waan yoo xam ne moom dees na ko jéggal nit ki te fekk tuubu mooy yi ngeen dégg ñuy wax naan ku def nangam xufira lahu lu mel ni man saama ramadaana imaanan wa ihtisaaba xufira lahu ma taqaddama min dambi woor weeru koor ngir gëm yàlla ak bëgg tuyaaba ak sàkku tuyaaba ñu jéggal ko bàkkaar mi njëkk yooyu bàkkaar yu ndawee tax ñu wax mooy in tajtanibu kabaa'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'aatikum sayyi'aatikum muy bàkkaar yu ndaw yi ku moytu yu rëy yi yàlla yu rëcc yu ndaw ndaw yi rëcc ñu jéggal la ko loolu loolu loolu mën naa xam kon bu waxé waxee ne ku def nangam yu jéggal la ñu xamné ne bakkar yu ndaw ya tax ñu wax ay bakkar bu mag moom tuub rek moy tax ñu jéggal ko ak tuub nak bu sellee saabu la bo xamné tilim bi mënta fóot amul loolu bokk na ci yërmaande yàlla ci jamm lu way mëna def laa taqnatoo min rahmatillah inna allah yaghfiru dhunuba jami'a fi xel bu tuub tuub bu sell rek te tuub bu dëggoo lay lay sax day weesu jéggal la waye day soppi yu ñaaw yu nga defoon soppi la koy yiw yubaddilillahu sayyi'aatihim xasanaat kon loolu lu am solo la waaye bàkkaar bu mag moom tuub mooy tax ñu baal ko nit ki tuub mooy tax ñu baal ko nit ki kon lu mat a moytu la te yëpp yi ñu wax ne ca la ñu moytu ko bay ba baax na bari na ci yoo xam nag mi ngi tasaaroo ci seen biir yi lu mel ne njabar lu mel ne faat bakkan ay jaaxaan yooyu moo tax may bàyyi xel bu defee ñu bàyyi xel ne yi nga xam ne moom diggante jaam yi la maanaam bu ñuy wax ku def nangam jégal ko bàkkaar it bi dox diggante jaam bi ak boromam la waaye bàkkaar yi dox diggante nit ñi moom sunu borom da cee maanu faaw ki nga tooñ nga baalu ko ba mu baal mbaa nga fay ko ba mu gërëm mbaa bu yow nga xam ne danga koo fay loolu it lu ma tamay tudd muy daal ndax fas yéene naa tàmbali waaw bu fekkee ne moom de li muy bind leetar bi doggu na ci fase ko nga xam ne moom jàpp naa ne fase na soxna eggug leetar ba ak ñàkk eggam ñooy téere yi fi ñuy waxee naan leetar bi bu ci soxna si jotee sëy ba tas na mooy ku bind leetar te dogoo gut ci fase masalan daa bind naa bind leetar bi tegandi ko nii waaye nag lii moom ma ci bind dogoogu ci waaye damay xaar daal bu ma defatee nangam wala nangam fas ma jox ko ko jublu ci faset loolu la ñuy wax ne saa bu yàlla dogalee jigéen ñi dox ba yem ci leetar ba sëy bu tas doonte woon ci faset amma leetar bi nga xam ne bi nga koy bind dogu nga ci fase ko sëy bu tas na mu jot ci ak mu ñàkk ci jot kon su faatoo jigéen ja dañ koy xamal ne ko ñu xool date bi mu ko wàccee te ñu xam ñu gis ne. Eh, fase mu jaar yoon la boobaa jigéen ji dootul teñ ji du doon bu fekkee ne du fase fasewu ko ci wopp waaye bu fekkee daa wopp def ko nag mën nañoo ragal ne daa bañu mu doon kon sëy ba tas na waaye dana ko doon waaye sëy bi day tas moom ginnaaw moo ko def te ba mu koy def dogu na ci ñàkk cee jigéen ji du tee sëy bi tas nag diggam ak bor loolu diggam ak borom la maa bu ko kenn yëgutoon mu ne ci yàlla duñ ko àtte ci sariya ndax kenn gisul waaye saa bu feeñee ñu xam ne dogu na ci xëy na foofu lay jafe xam mooy ndax bi mu koy bind kenn fekke na ko kuy wane ne kii kat lu mu dog woon wala daa bindoon lettre bi ngir loolu ñu wax jàpp ne bu amee lu doxoon diggam ak soxna si mu door ko fase loolu mën naa bañ a leer waaye bu leeree moom ne ba mu koy def dogu woon na ci fase ko sëy ba tas waaw soxna si du tënj du doon bu fekkee ne def ko ci wopp bu dee ci wopp nag du tënj waaye dana doon ku ku nam ma xañ nit ak xam la nga namoon ñu xañ la ko yow mooy dañuy jëflante moom bi naqiidi qasdihi loolu la téere borom téere yi wax ci masala cangaayul janaaba waru ko bu ko ndax bu ko defee du baax laab dañ cey sart nga doon ab jullit surutu tahaara surutu sixati tahaara bokk na ci al ku nekkul jullit mënoo laab kon jarut muy sangu janaaba ndax amul njariñ waaye nag bu setee ci mbërëg mbaa nifaas moom góor gi da ko war a forcer ci mu sangu ngir mu door a mën a jaxasoo moom loolu du du du du du laabal jigéen ji waaye day may borom këram mu mën a jaxasoo yasalunaka an ilmahidi qul huwa adan faatazilu nisa fi lmahid waaye waxoon wala taqrabuuna xata yatahharna fa ida tataharna mooy bu ñu sangu loolu ji soxna yépp ci yam fa ida tataharna ji ñi doon julit ak ñi nekk ahlu kitab ñoo ci yam kon nit sëñ tëj joteeg soxnaam soo xam ne dafa gisoon baax mbaa mu gis meret ba set te sanguwul kon foofu day sangu ngir góor gi waaye sanguwul ngir làpp bu dee janaab mi nga xam ne nag jaxasoo moom sartuñ ci mu sangu kon kenn du ko def loolu ndax amul njëriñ kon nit ku takk ku dul ak jullit ak kari ab ahlu kitaab war nga koy forcer mu sangu setee ci baax ak ci nifaas waaye jërut nga di ko forcer ci mu sangu janaab ndax amul njëriñ kii moom day laaj mu ne laa yëg suñu borom wax ne maa yansax min ayatin aw nunsiha nati bi xayrin minha aw mithliha mu ne laaj lan la jëf suñu borom bi wax waaw loolu de am na ci borom xam-xam yi tafsir yi ñu wax ne mushrikoon yi ñoo doon wax naan Muhammad daal sallallahu alayhi wa sallam jaaxal nañu moo gaay mi daal bu tayee mu digal leen dara boo lëgee mu terewaat leen ko mu daal day digle ko tere rek bu tayee mu ne lii baax na boo léegi mu génnaat daan ne kon alxuraan yi muy wax daal ay waxe waxu ndax daal sopp gu ci am am nañu wax ne sunu borom wàccee aaya euh, boole koog wa idaa am na nag yeneen i boroom xam-xam yu am ak seetlu yu sew bu wax ne ndax ñan yi dañuy wax ne ci wëlbati xibla gi bi ñu daan jublu بيت المقدس بام ياغ نجوملو ماك تي يمل نون لا كو يهود يون سيرن باي واخ لول نيوم ني غيس ناني اي يي بولي سورين با دنج كو دالو نيوم تي ني ويد غي ني ويد يونت بي دو يونت غيناو نيوم ньо في نيكون يالا واتي تي نيوم اك نوبو يالا جيكي جيكي سوبي كو داف كو تي يونت يالا محمد ني استغراب لول ويسر الله يختص برحمته من يشاء جيتو xam la ne yooyu yëpp yàlla ñoom dañuy wax ne ci la aay kon ak nu mu wala lay wax jóge ci yahudiya wala ci nasaraaniya ñi ko yoroon dellu ñëw ci ci arab yi ci jullit yenn loolu du xarib ndax yàlla sañ na tëral dara ba mu neex ko mu sob ko tër la ne maanaam sax mi naa it moom nun siha ak yi nga xam ne yëpp ay charia yu jiitu woon la yàlla nam mu nit ñi fàtte ko ba kenn jëfandi jëfandikutu naati bi xëyri minha dañuy indi lu ko gën te mooy lislaam aw misliha wala lu mel ne moom mooy yi nga xam ne lislaam soppiwu ko ca sharaaya ko jiitu woon déggin woowu nag day mel ne moo gën a dëppook siyaaku wax ji wax ne ñi jàpp ne ak yonental warta génn ñam nekkoon nañu xam ne yàlla moom moom lépp sañ na di tëral lii ba mu neex ko mu soppi tëral la moo defoon ak lu boobu fële moo ko fa jëlee jox ko fii kon diine yahudiya ak nasraani yam yoonaloon ba moo ko folli indi diri ju ju gën jooja atte yi ci newoon am na ci yoo xam ne da koo delloosiwaat kon yu misliha déggin woowu mel na ne mu gën a mu gën a dëppook seex bi donte nag téere yu bari wax jee wax nañ ko ci ne dañoo yahoo di ñoo wax loolu allahu taala alam Eh, def na lu ñu sib dara waru ko la su jootub jang alquran sunna la luñu ñu sopp la bu fekke nit ki day jang alquran ci masab malik lay wax te andako lab te waxtu wa di waxtu nafila naafila dagan ndax sujud bobu xetu julli la nafila la waxtu nafila naafila dagan lañ ko sañ maya nañ nak ginnaw suba ba ba muy leer ginnaw takusan ba istiraat yiñ maye ñu def ko mom ci la bokk waaye ku ko deful nag dara warul donte nag téere yi dañuy wax ne ku doon jàng alxuraan ba agsi ci barabu sujjóot te yow mënoo sujjóot ndax waxtu wi la dëgganul am na ci ñoom ñuy wax ne na tëb aaya bi jàng ci sam xel waaye bu ko jàng ci sa làmmiñ ngir bañ a xëtt ndigal ndax ginnaaw dañ laa digaloon ne sujjóotal yàlla te yow mënoo ko faa def am na ñu wax loolu waaye liy firndeel ne ku ko defutit amoo bàkkaar Seydina Omar radiyallahu anhu julli na xutba na ci Madina agsi ci ayatu sajda wàcc sujjóot ba àjjuma ji dellusee mu defaat ko ba mu agsee wàccu daal di wéy wéy àggale àggale xutba wax ne lii euh, suñu suñu maanaam suñu neexee dafa la suñu neexee bàyyi waaye kenn digul nekkul farata joo xam ne ku ko deful da ngay am bakkaar waaye daal ku ko man li gën mooy nga di ko def moo tax ci masab bi dañuy wax ne bàyyi ko ci tey te amu benn ngànt moom ko def def naa lu ñu sit waaye nag amul bàkkaar ndax xëttul ndigal loo xam ne dañ caa gàll ab yar taxaw de daa bokk ci mazhab bi yi ñuy wax ne xilaaf da cay ñëw wa fi wujubi qiyaamihi lahuma wa sunniyatihima tardu kama qaala saaxibul muxtasar maanaam dañuy wax ne ndax booy xutba taxaw gi chart la nga xam ne boo ko deful baaxut wala sunna rek la boo ko deful def nga lu ñaaw waaye dana wér wuute am nit waaye li gën a lëng nag mooy waajib la ndax li nga xam ci sharia mooy yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mësta julli xutba te defut taxawut xutba te it liñ santaane xutba day mel ne taxaw mënu ca nekk ndax dañ lay wax ne la boo dikkee na nga toog ci njëlbeen gi jóg xutba bu xutba njëkk bi jeexee nga toogaat jógaat bu fekkee lépp da ko toog day mel ne kon diggante yooyu ñuy xajale ci te sallu kama ra'aytumuni usalli dañ ciy tegta la wax ne yonent bi mësee su koo gis muy xutba toog am na nag ci foqa yi borom xam-xam yi ñu wax ne ku am ngànt moom mën na koo def waaye li gën mooy mu wuutal imam bu demoon ba am ngànt mënta toog mënta taxaw sañ naa toog xutba waaye li gën mooy mu woo naa ba mu ñu jiite xutba suba ba waaye nag saxoon na alxalifatu uh, uh, muawiyatu abi sufyaan radiallahu anhu wax nañ ni moo ko njëkk a def am na xutba di toog xëy na booba ngànt la am kon moo tax ñu wax ne eh, gënut waaye dagan waaye eh, ku ngànt moom jaaduwut nga di ko def waaw carte de baat bi tudd may maysir fekkee moom la imam Malik daf doon wax ne ñaari xeet la maysiru ximaar ak may maysiru la carte gi nga xam ne amul xaalis danga gañe waaye doo gañe xaalis loolu may maysir la atte boppam la yor mooy lu mel ni bëloot ak mariyaas ak dam ak yooteeg ñoom seet yooyu noonu nga xam ne nit ki day bëgg gañe naa la nangam te yorul dara joxu jotul dara nga xam ne nga ñaayul maanaa la yëg ne yaa man waa ji la waaye amul xaalis bu ci teg loolu dañuy wax ni bu fekkee ne doxut sa digganteeg farata yi jaxasiwul ak lu xaram suba bu bari ko dañ koy si su bariwul nag am pola atte po dagan na ci ay xuduud yu ñu xam waaye dëkki ko dëgërut bu doxee sa digganteeg say farata dëgg te yooyu nag gis nañ ne léeg-léeg ñu koy def bu julli jotee ñaar duñ ko tal boo leen rombee di leen nuyu duñ la tarafay doxal la ñuy wax ak defal nangam rek ñuy seetaan sax dañuy di bokk ci yëf yi bu dee may siru ximaar nag mooy bépp jëflante boo xam ne waaye yi day dugal dara ngir mu gañe mbaa mu loolu xam loolu carte lépp looy dugal dara ngir gañe mbaa nga perte ñaxe kullu amaliya al mushaariku fiha imma ghanim wa imma gharib loolu mooy maysir xam nga ay mbooloo ku ne joxe dara ñu tegoy bant ku bas si bant génn nga jël lépp kon yow mi joxe li nga joxe danga bëggoon a gañe lépp benn nga gañe lépp mbaa nga perte li nga joxe woon loolu carte ak nuñ ko mën a tudde nag moo xam loterie la moo xam taabal bi ñuy taxawal di ko rëdd def ci ay numéro di ko rëdd la moo xam ay ay ay xob yu ñuy dëppal ko ëppal ci la ak lu mën a doon naka noonu dam yàgg yi bu ñu ci dugalee xaalis carte la naka noonu course bu ko ne joxee ku raw jël lépp carte la li doy waar ba doy waar bi ñi ngi kàrtuloo nit ñu bari ci suñu jamono ji téyegul di la wax ne la ab émission sàngam boo ci wootee mën ngaa gañe nangam te yow crédit bi ngay wootee xaalis mën ngaa gañe mën ngaa perte woote woo ngir yàlla dangaa wootee ngir gañe soo gañewu perte loolu carte SMS yi ñu yónni lu yónneel mën ngaa gañe nangam SMS bi xaalis yi kon joxe nga xaalis ngir gañe benn nga gàñe lu bari mbaa nga ñàkk lépp carte la ni ki nga xam ne bu yàggoon naa gis ko daan dafa jaay ab oto wala nangam ne biyee ñaar fukk la nit ñi dañ koy woyofal ku ne mën na ko jënd loolu fi ne bu oto bi doon jar ñetti million mën na cee am moom juróom million ndax ku mu romb rek nga joxe ñaar fukk buñ ko téeree ku sa këyit génn nga gañam loolu carte la ndax ñaar fukk koo nga joxe ngir am wala ñetti million wala nga am perte ñaar fukk loolu nag bokkut ak jaaykat boo xam ne daa bëgg njaayam ndox mu daal di wax ne man ku jënd ci man am naa neexal bu may joxe waaye dama koy tegoo ay bant ku jënd ñu jox la neexal bu lim ba amee ñu tiire ko ku turam génn nga jël kooku xam nga joxewul dara moom dafa ñëw ci biti génn soxlaam fay xaalisam dem jariñoo lam jënd kon ñàkkul benn dërëm jaaykat bi moo bëgg ku jënd si ci moom ba tax man ku fi jënd naa la ne xam masalan kuy jarum jaay ceeb daal di wax ne ku jënd ci man day am naa saako ceeb bu may neexale boo xam ne buñ ñu ba ca mujj koor ga laa koy joxe léegi nag ku jënd ci man ceeb rek dinaa la jox benn ticket suñ demee ba ci bis booba ticket yooyu la dugal ci mbuus génne ko ku saw tur génn yaay jël saako bi kooku dala ko may waaye yow ñàkk ko benn dërëm ndax xaalis bi nga joxe woon ceeb boo jënd la lekk waaye li tudd carte mooy loo xam ne li génn ci yow génnul ngir yàlla te benn nga jot jotaat lu ko ëpp baa nga ñàkk nuñ ko mën a tudd nag carte donte daa jëm ci lu nur lu baax it nañ ko bàyyi xel ab jullit bu yëngu day yëngu ci lu am njariñ moo tax ab jullit lu muy def lu ne war naa xool góor-góor ba mu dëppoo yoon ndax bari na ñoo xam ne dañ koy def ci lu baax laaj ay laaj yi diine ak yu mel noonu waaye carte nga ci biir teegul ginnaaw boo wootee bu fekkoon tane day doon yoo xam ne booy woote doo fay dara amut lu muy dem suba mën nañu jàpp ne ab neexal booy joxe la waaye kii woote moom ñàkku ci dara waaye yëpp kii bokk mi ngi joxe dara ngir gañe mbaa mu ñàkk loolu carte carte googu na dëgënu bu ko ni defee lu mu ci amee dëgënu maanaam xaalis boo boo carton ba am ko alal ju xaram sañu ko lekk sa njaboot sañu ko lekk loolu ma ta bàyyi xel di am nag yu bari fii am na ci suñu réew mi yoo xam ne dañ ko mel ne dañ ko yoonal sax ay nit di ci dox di ci yëngu waaye nañu xam ne carte muy fas yi daw léeg-léeg bu ab ab am po amee ñu ñu ñu ñu laaj ne ay xaalis nga xam ne ay ay ticket yu jaay ngir ne ku ci gañe am nangam yooyu yëpp carte te nag borom bi da ko tere innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaan fajtanibuuhu laallakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون tere yu bari la dajale foofu yuy saxal ne carte dafa xaraam te it day dëngal ay bopp day tax a fàtte yàlla ñaare ñi ci nekk duñ tal yàlla lu baax loo leen di woo duñ ko yëg féeg na ko ji kon nag nañ ko moytu suñ kem kàttan bu ñu bëggee am ngërëmul yàlla. jërëjëf sëñ mbokk mi ñu waaye boobu dafa dugg ci biir ay aayaat yu suñ borom doon melal jaami yàlla yi ibaadu raxmaani alladina yamchuuna ala al ardi hawna ca la waxe ba wax ne mooy ñi nga xam ne it du ñu jaamu yàlla di ca boole leneen lul yàlla laa yadoona jooju laa yaabudu ci tafsir borom xoox yu bari maanaam jaamu gi ñu jaamu yàlla duñ ci bokkaale yàlla dara ndax bokkaale day yàq jëf du ñu rey bakkan bi yàlla araamal ku ko rey xanaa ci dëgg xanaa ci dëgg mooy ku rey nit ñu war a fayu ku njaalo te sangewu ak ku tubbi génn ci diini ñett ñooñu moom seen deret nen dañ war rey waaye nag lu dul loolu euh, ku faat bakkan ci dul dëgg toggoo nga bàkkaar bu mag a mag ci bàkkaar kon julli dëgg mooy koo xam ne day jaamu yàlla te du ko bokkaale waaye du faat bakkan ci lu dëgg waaye it du njaaloo borom bi ne ku def loolu dina dajeek asaab am na ñu ne asaab mooy mbugal nakaal di ko firi al danañ ko fulal mbugal mi yomal xamee te it sax des di ku ñu doya dal ay wey ne ba mu des ku tuub ba def jëf-jëf ju baax ñooñaat suñu borom nee na da di soppil seeni ñaawteef daf ko ay rafetal dañuy wax ne aayat yooyu nag ci al mushrikuuna yi la wàccoon maanaam ndax bi aaya yooyu wàccee li li jiitu alladina laa yad'uuna ma'a llaahi ilaahan aaxar wa laa yaqtuluuna nafsa allati harrama llaahu illaa bil haqq ñoom dañ ko daan def bi Yàlla waxee loolu ñu ne ah, ne kon jërul ñu dugg ci diina ji yàqoo nañ ba noppi yi wax yépp def nañ borom bi waaye nag ku tuub te jëf-jëf ji yóbbu yàlla jéggal ko soppil ko ay ñaawteefam ay rafetam loolu lu dalal xel la ci ndekete bakkar mën na rëy waaye su ko nit ki tuubee moo tax Ibnu Abbas moom radiyallahu anhu dafa daan wax ne nit ku ray nit te tey ko sawar la jëm kenn mënu koo jëkkal bokk na ci ñi gën a dëgër ci loolu ndax wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaa'uhu jahannam xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'ana foofu la sukkandiku bi ko saxaaba yenn yi laajee yenn ci borom xam fi ne ko waaw aay yii suñu borom wax ci suuratul furqaan nag mu ne aay yooyu ci yéefar yi la jëm yéefar bi nga xam ne daane du ma tuub ndax man yii alxuraan wax yépp def naa ko kon man mënu maa doon ibaadu rahmaan ndax rey naa bakkan njaaloo naa nangam naa ñoom la wax ne ku tuub ci ñoom dugg ci diine yàlla jéggal la te soppi la say ñaawteef ak lu waaye ki dugg ci diine ba noppi moom wëlbatiku defaat leen moom nee na laa tawbata la donte nag jumhurul ulama dañ ne ki rey nit kenn la ci way bakkaar la toggoona daal bakkaar bu mag waaye borom bi noonu na dana jéggale bakkaar yépp kon bu tugg sellee te mu góorgóorlu mënees na ko jéggal rawatee nag bu defee li mu war a def ñu war koo rey reyuñ ko ñu baal ko wala ñu rey ko te mu tuub su boobaa yàlla mën na ko baal ko ngir maa waaye moom Ibnu Abbaas moom dafa doon wax ne kooku laa tawbata la jërëjëf sëñ ci mazhabu al imam ku juubu ci bëccëg bu ramadaan day wéy di jàpp ba noppi day fay bis amul bàkkaar nag ndax teyu ñoom xadis bi wax ne ku juubu yàlla moo ko leel niñ ko dégg ñoom mooy ci koorum bi ndax dañuy wax ñoom ne yàlla moo santaane ñu woor weeru koor bi ku am bis nga lekk ca bis booba wóoroo te weer wi lañ la woor loolu nas quraan yi ñoom ci la ñu sukkandiku ba wax ne ku juubu ci ramadaan bàkkaar la la juubu ji teggil waaye du la teggil waruk fay bis bi fay bis waaye nag da ngay àggale sa koor yi amoo sañ-sañ ne kon juubu naa rek bis bi yàqu na kon li ci des naa ko lekk boo ko defee da nga fay kafaar waaye ki lekk te day wéy àggale bu weer jeexee mu fay bu doon koorug nag bu doon soo juuboo da ngay àggale te doo fay am nga tuyaabay koor bu doon fay koor nag boo juboo da ngay dagg koor gi moom da ngay lekk la des bis bi ndax bu du ramadan amul war moom te fay moo la waroon

ميوخنان قال يا قوم أرأيتم وإن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا بكو بمي وإن تب دين نحن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه تك إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب دفع damaa am lu leen wax yéen sama mbokk yi damaa am lu bu ma amee lu ma leer ci sama borom mu sant ma woote jaamu yàlla yàlla yit may ma wërsëg wu lew baaxe ma ko te it man li ma leen di woo doonuma la koo xam ne dama leen di woo ci mbir ba noppi def safaan defar dong laa ci jublu defar seen mbir ak defar leen yéen sama kem kàttan foo mën a yem xam naa ne it ngir ma am ci ndam yàlla rek ma ko mën a may yàlla dong ma mën a taw féexal li ma bëgg ma am ko waaye du sama kàttan du sama pexe moo tax it ci moom dong sukkandiku ci moom dong lay dellu loolu yonent yàlla Shuayb la ñu alxames nettali li ma ko waxoon ay nitam dafa mel na ñi danañ koy di jëfandikoo nag ci kuy wax ak ñoo xam ne day mel ne yow li ngay wax daal liñ ci jublu ñoom jàpp jàppewuñ ko noonu. la deug ko wax ba daanel ni in uridu illa lislaha mastata eh, day mel ne kuy tontu ñi bëgg wax ne saay li muy wax mom xala da ci am intérêt wala nanga ma tax mun la déedéet defar dong la ci bu ci kenn japp re dama iya ci yéena lenen xasuma kenn ngañuma kenn defar dong la jub ma ngi ko ci yalla it di xam ne it moom dong mom man may tawféex maam li bëgg ko na ne xeyna na jëfandikoo gi ko ñen ñi di jëfandikoo moo laa jàpp ne tax bokku di ko laaj waaye bu dul loolu siyaax bu mu dugg du lu beru waaye nag lu ñuy faral di jëfandikoo la jublu ci wax la yonent yàlla Shuayb bi waxoon ay nitam ci ne lii ma leen di woo moom lay dund li ma ci yéene sama bopp laa leen ci yéene kon woowu ma leen ci lu leen di lor ñëw ngir bëgg leen a jariñ defar dong lañu allahu taala tërbiya de li muy li ko tax a jóg mooy defar nit ba mat lim doon doomu aadama bu juddoo day mel ni waajal nañ ko ngir mel nu ne tarbiya nag moo koy melal nag mel bu dee tarbiya salima shamila mu daal di mat ki mu doon bu dee tarbiya muwajja mën naa daal di doon leneen tarbiya mën naa yóbbu nit ba mu féete ko malaaka ci mbaax waaye tarbiya bon it mën naa yóbbu nit moom yées seytaane ci mbon kon day mel ne mooy melal nit ni mel kon njariñam mooy defar nit bu dee tarbiya salima xam naa moo tax muy laaj tarbiya bu baax mooy day defar nit ba mu sotti mat li mu doon xam li tax yàlla indi ko ci kaw suuf mu mën caa tënku di def ay ndigalam bàyyi ay tere loolu ku ñu tarbiya wut ñaare doo ko mën tarbiya nag mu dafa yaatu jàngalal ci biir leneen lu dul jàngal ma ci biir te jëmmi jàngal nit ab justu la ci biir tarbiya boo koy tarbiya danga ko jàngal danga nga ko yee da ko tàggat ci yu bari tàmmal ko ay yëf kon tarbiya mooy baat bi gën a yaatu kon sëriñ bi defar nit ab yarekat la waaye du rek ab jàngalekat ci biir yar bi nag dafa laaj ak njàng ñu di ko ci boole kon mooy lii tax nit mat li mu doon daal moo doon tëkk daal loolu mooy njëriñu tarbiya waaw xam nga dafa mel ne suñu borom da cee nettali jullit yi nga xam ne raasixuuna fil ilmi yaquluuna amanna bihi kullu min indi rabbina ñoom ay mutashaabih duñ ci sikk sàkk al muhkam ak mutashaabih lañ yemale lépp lañ gëm saa bu aaya rote ci alxuraan maanaam a leer ñu gëm su maanaam a leerutit ñu xam ne yàlla xam lam ci jubluwaay gëm nañ ne wax yàlla ñoo toog ñu la ñuy wax naan rabbana laa tuzigh qulubana yàlla boo jàngal suñuy xol ginnaaw boo teg gindee ndax bokk na ci jàngal ab xol yóbbu la ci mutashaabih nga di ca werante ba di ca wax lu waxu loolu xol bu jàng ko def kon yàlla boo jàngal suñu xol ginnaaw boonu gindee wax nag yàlla nag nu may yërmaande eh, di bàyyi ko fi yow ndax yow rek yaay mayekat bi kon ñaan yàlla des ci ak gindi ki tegu ci yoon ba noppi moo koy ñaan xam ne li yàlla wàcc ci alxuraan la ca leer leer na la ci lënt lënt ci yow la waaye bu mu tee nga gëm ko waaye bu ca xuus ndax xuus ci mën naa tax nga jeng ba fas loo wër te fas te loolu alkane xaj na ci nu ci yàlla musal

la cay cosaan mooy al wat bu dee ci sharia nag la cay cosaan mooy al aqd pas-pasu sëy mu ne njaalokat bu góor du jaxasoo ku dul njaalokat bu jigéen ne moom mbaa boog koo xam ne jàpp na ne njaalo araam muy mushrik boobu weddi yàlla mushrik am na ñu ko dégg noonu waxin ne njaalokat bu jigéen it kii séq ak moom njaalo mooy góor gu mel ne moom waaye jullit moom du xam ne lii lu bon la ba nag mu di ko def am na xadis bi wax naan aji njaalo ji du njaalo te fekk mu nekk mu'min njaalo ji du njaalo te fekk mu nekk mu'min am nag ñu wax ne denc lay firi ndax am na ci saxaaba yi koo xam ne dafa am jigéen joo xam ne ci makk la nekkoon doon ku jubari benn bis waaja soxna sa bëgg séq ak mom waye lank dem ci bi di sakku nax man na ma tak diw te ñepp xam ne diw mom ku jubali la wax na ci la ko yonent bi islaam jàngale aaya bi ni ko azzaani laa yankihu illa zaaniya ko bo day fete men tak am am ko bu goor mana am ko bu goor rek moy tak jigen yo xam njaalokat ko mana man nañ cee dégg yow xam nga ni ki kuy taxawaalu nga xam ko ba noppi takku yàgg moom yee wala bokk ku gëmul yàlla gëmul ne jaaloo araam mooy muskil ñaari déggéen yëpp am nañ ko lu mën a xaw waaye ñi ngi wax nag loolu ki tuubut maanaam ki mas a jaar ci njaaloo ginnaaw ba mu tuub tuub bu sell kooka wareesu ko atteeti la weesu waaye yi ñuy wax mooy ki ci nekk te bàyyiwu nee na moom mi ngi koy def te bàyyiwu nga xam loolu ba noppi yoon bi mu ko takk yaa moom yéen a yam ndax boo sorewul ay àtte waaye xam ne diw kat la te bàyyiwul njaaloo nga dem di ko takk loolu dëgër ndax ki def loolu da yuuf la yéntu ay salaam waxoon ne mooy ñoo ñu nga xam ne duñu fiir seen biir kër ñu fiir seen njaboot ak loolu wax ne aji njaalo ji du njaalo te fekk mu nekk gëm yàlla kon daal ki daan njaalo su tuubee tuub na tuub day far la weesu waaye fii ak tubut nag ab julit waru ko takk bu dee góor bu dee jigéen bu tëseeg góor goo xam ne jàll ko la xam tilim moom sobe la ñuy tere ku ko mbubb mën naa tilim ba noppi làpp set ak làpp ñaari mbir lañuy wuute mbubb dana set te du làpp dana tilim ba noppi làpp ndax bu dee liggéeykat boo xam ne la muy liggéey du sobe yére mën naa taq ba tilim waaye taqul fenn sobe kooku bu jullee noonu julli gi dara sikku ci mat na waaye nag la mu def gënut ndax borom bi dañoo waxoon ne xudu zinatakum inda kulli masjid way indi julli ji na ngeen taaw kon li gënoon xëy na loolu mu wax ne fa muy liggéeye waaye jàpp naa ne mënoon na fexe ba ba sóoraale waxtu timis bi ci ci wàcc gi dana ci baax bu demee ba des tuuti wala mu yóbbaale ay yére yoo xam ne su su dana bàyyi xel ne timis mu ngi waaj jot bu wàccee sol yére yooyu julli timis waaye bu fekkee ngànt am na nag ba mënu koo sumi bu ko julliwaalee julli ga baax na dara sikku ca ndax yére yu tilim bu laabee mën naa julli set gi nag moo gën xëy na nag kooku li ñu ci wax rek mooy na moytu ñëw ci jàkk ji di tilimal tappi yi ndax day lor ñeneen kooku mën na ko moytu ndax bokk na ci xadis yi yoo xam ne yenn xet yu naqar yi sax yi doy sax daa waxoon ne ku ko xeeñ bu ñëw suñu jàkk ku lekk laaj ak yu demee dafa daan wax ne sunu jàkk du fi dugg kon am na taq-taq yoo xam ne boo ko dugalee jàkk lu julli ga dana baax naam waaye da nga yàq te jàkka ji loo xam ne mënoon naa loolu daal lañ koy bàyyiloo xel waaye ñu bàyyi xel ne laab ak set bokkuñ laab mooy laab na ci sobe donte tilim na set nag mooy set na ci tilim mën naa taxu sobe mën ngaa am mu taxu sobe nga fóot kook saab ba mu set set na waaye laab laab ndoxum mutlaq moo

jëndu ay sara wax nekku ku dem ci jabarkat mu wax la dara gëm ko weddi nga la yàlla wàcce woon ci man alxaan wax ci àddu ci teewut am na ñuy wax ne ku ñu njabar bu fekkee nag njabar la maanaam njabar lañ ko def mu jéem jéem koo saafara mënu ko faj njabar dong la gis ne mën na koo faj am na ñuy wax ne dagan na mu njabar lu ngir faj li ko imaam ahmad yenn riwaayaat bokk na ci ñi ko nangu ak yeneen borom xam-xam wax ne maye nañ faj ak njabar bi sixri waaye na fekk mu sës fa nga xam ne xam ne daal moom dañ koo njabar te wenn yoon la am ngir faj njabar gi muy yoonu demaat ci njabar yi loolu am na ci borom xam-xam ñu ko wax donte nag am na ñoo xam ne ñoom nee nañ moom njabar baaxut te du baax moom loolu nag laa xamul ndax ci ay rab japp dañ koy duggal ci buntu bobu wala dugg ci loolu le cinéma leer ko bis penc lay melal moy ban bis ma adraka ma yawmu diin summa ma adraka ma yawmu diin bis lay mooy bis ba nga xamee ne laa tamliku nafsun li nafsin shay'a bakkan beneen bakkan dara ci lu dul coobare yàlla wala amru yëpp ci loxo yàlla rek la adduna ji it mbir yëpp ci loxo yàlla nekk waaye day doxee noo xam ne léeg-léeg nga koo xam ne day mel ni am na dara moom na dara am sañ-sañ di doxal di lijjanti mbir nga ne ci ay jafe-jafe mën laa toppatoo ba lijjanti la loolu am na ci àdduna yàlla mayan na ñu may loolu yowmal xiyaam nag du may kenn dara moom mooy nekkal boppam di lijjanti boppam dana am nag ñu muy baaxe def loole ñuy ràmmoo ko dimbulee waaye loolu lépp ci ndégalul yàlla lay mooy kenn daal mënut a jóg def intervention ngir dimbule kenn ci lu dul moom ci ndigalul yàlla bis penc mooy bis bi nga xam ne laa tamliku nafsun li nafsin shay'an bakkan daal foofu mënu fa dara mënalul boppam dara mënalul keneen dara xanaa ndigalu yàlla jox ko ndigal ne ko defal nag mbir yépp su yowmal xaamee ci loxo yàlla lay nekk donte ci àdduna ci la nekk waaye àdduna bàyyee na jaam ñi léeg-léeg ay mbir ñu di ko lijjanti yowmal xaamee nag du bàyyi kenn dara wallahu taala alam jërëjëf sëriñ kii lay mooy ban ban la ñu doon bu fekkee ci biir imam Malik wala gërëm imam Shafi'i waaw zawul arham de mooy ñi nga xam ne dañoo bokk nit ci wàllu meen mooy li wolof yi tudde fii meen bu dee ci arab nag dana gën a yaatu ndax nijaay bokk yaay daal ak bàyyi yaay bàjjan doomi ndey ak doomam ñun ñëpp ci zawul arham lañ bokk bu dee ci lislaam ñooñu duñ doon bokku ci ñu war a doon ñooy doon ak nag benn nag ci ñi nga xam ne waroomi cër la waaye zawul arham bokkuñ ci ñan lañ ci tudd mooy ixwali um ixwali um ak euh, yaay yaay jadda ñooñu dañ xam yu demee noonu ci zawul arham ñoo xam ne dana ñuy doon léegi nag euh, fuqahaaw maliki yu njëkk yi malik ñu mag dongaaw yu mag yi ñoom dañ ñëwoon woon zawul arxaam waruñoo doon ndax ndono alquran da koo tax di tudd ñi doon te tudd lañ ci kon buñ fi nekkul alal ji nañ ko yóbbu baytimaal waaye waru su ko jox kenn ci ñooñu xanaabila yi ak axnaaf yi ñoom ñoo daan wax ne zawul arham mën nañoo doon waaye fuqahaa maalik yu mujj yi yu mujj ñi moom ñoo shafiyan yi yëpp dañoo fekki xanaabila ak axnaaf daanaka mën nañoo wax ne léegi ijmaa am na ci ne zawul arham ñoo gën a yey ci donn loo baytimaal rawatina baytimaal boo xam ne teguwul ci yoon ñi wax donn loo zawul arham nag ñooy wax radd ba tey waaye bu nit faatoo te bàyyi ñoo xam ne mënuñu jeexal alal ji dañuy ràdd alal ji maanaam buñ miraasee ba noppi li des dañ koy delloo waat ci biir miraas mi ñaari way dañ rek ñoo ci bokk waaye bu loolu amul nag koo xam faatu amul ñuy donn nga xam ne miraas amul ñu donn amul amul ñu ci ràdd su boobaa zawul arxam la ñuy teg am na ay mazahib nag ki ni ñu donne waaye mazahib bi gën a simple mooy bi ñuy tudde man matabu tanzib nga xam ne kenn ku ne dañ lay jàppee ki ki ki nga ki nga toog barab masal nijaay dañ koy jàppe yaay jox ko li yaay waroon am bàjjeen ñu jàppee ko baay bu ndox yu demee noonu kon bu nit faatu woon tey bàyyi ay doomi jigéen kese waa léegi li ñuy def mooy buñ bu ñu leen joxee sulu saani keneen néew fi kuy doon dañuy delloo li ci des lañu koy delloo ndax ñi wax tawriis zawul arham ñoo ñuy wax radd bu radd bu fekkee kuñ ci radd nekku fa lañ koy door a yóbbu ci zawul arham bu fekkoon nag daa faatu bàyyiwul kenn kuy doon maa boog nit ki góor la soxna dong la bàyyi te soxna bokkul ci ahlu radd kon bu ñu ko joxee cëram la ci des dañ koy jox zawul arham loolu moom ittifaax am na ci léegi ci bayna al fuqaha donte bu njëkk ñoom dañ ñëwoon zawul arham dañuy yóbbu alal ji baytimaal waaye ñoom dañ koy delloo ci wa ulul larxaami baaduhum awlaa bi baad ji moo bokk na ci ndër lay li ñi doon loo zawul raham di su sukkandiku te léegi borom xam-xam yi ko yi ci àndutoon mujj nañ ci ànd kon mën nañu jàpp ne zawul arham mazahib yëpp dañ leen di doon loo fi ne waaye ci kaw ginnaaw bu radd ja jàlle waaye bu radd amee alal ji du agsi ci ñoom bu amul nag lay doon agsi ci ñoom euh, loolu ci furudu kifaay la ko aw ay jullit métier yi nga xam ne ni mënta ñàkk seen biir xadaa ci la ko nit ñi dañuy jote di soxla ku leen atte waaye nag ci lislaam kon ab attekatub jullit réewum jullit mu ne war na ko am kon duma wax ne ndax nit sañ na ko jëfandikoo daa war ci ab jullit mu am ci seen biir ay jullit ñu am ñu leen di àtte ci lislaam bu fekkee nag àtte la boo xam ne moom lislaam daa jublu nii mu jublu nële boobu àtte moom dëggan di ci àtte it dëggan ndax yaa ngi xañ seen àq di doxal lu jaru masalan miraas ni ko lislaam santaane képp kuy àtte te àtte woo ko noonu la ngay àtte baaxul te atte bu mel noonu dëgërut ndax dangaa fekk li yàlla tëral ne doxaleen nii nga lànk ko doxal leneen kon ci bunt bu mel noonu moom nekk atte bu dagan yëpp ñoo yem yooyu bu fekkee ne ci dëgg nga fay nekk te la ngay def lislaam bu ko doon def noonu la koy defee moom subaa lu baax saa ba wàcc yoonu lislaam nag nga xam ne bu lislaam dikkoon moom lii nga def safaan bi lay def subaa la nga atte baaxul kon attekatub lislaam moom farata la mu am ci biir jullit waaye nag ku atte te atte woo ci lislaam sa atte atte bu jàng la baaxul jullit yi wërta dund lu mel بودي ديرو خاج بي خاج دا ميد دي سوبلا بوكو نتي سارتي يوربيلي نك طهاره المكان موي فيغا تخاو دي جولي نك فلا باي نك ما ذكري والقدره فكيري من غوكو تفاتيو مثلا كي جولي والي سوبي با سلمل دور كو فاتلي كو جولي غور سوبو ناني ريك مو با واي جولي غبا كوم نيمي واخاني بون جابي ني دربي سوبلا تي سلمل دور كو خام جولي غبا Waktu waxtu wi jeexul sopp nañ boobu nak nak ndax bàyyi xel ne derab xaj man na baña nek sa sobe ab xaj buñ ko sa moy na yor mala yo xam dañu ne sip ko lek sañ nañ ko rendi ngir djublo lawal der boko rendé mom moom deru day la deru mëdd mooy sobe waaye deru lu ñu rendi luñu rendi te lek ko dagan ba ñu sip ko derba day laab nak deru xaj nekul sa buñ ko wul nak nga xam nak bu ko jullee taxamoo ko julli baax incha allah. kii nee na bu doon julli bi nga am dem ci lu ko a ci moom moom dagg julli gi julli kay boo ko daggee dagg ko bu dikkee day julliwaat xam nga ñuy wax binaa duñ dagg julli gi fi bi dem mooy ku doon bori génn julli gi dem raxasi deret ji te jàpp ne yaa boo raxasee deret bu noppi ñëw àggale sa julli loolu mooy bina waaye ki dagg julleem door dem bu diggee day tàmbaliwaat def nag lu ñu santaan la ñuy wax ne ilimaan wala kuddul ilimaan boo doon julli seen ku nar a loru war nga koo xettali doonte da nga yàq sa julli ci wax ak jëf wala jëf masal tay bu dee koo xam ne boo ko waxee dégg la daggal julli gi ne ko yaangi def nangam yaangi daanu ci bax mi taxawal sa julli yaqku waye amoo bakkar ci yaq gi ko yaq ndax yoon mo la ko yaq la bu ko defé nga wat waye da ngay wat naka non bu seenon ko ne bu yaram koo xane mom bo boo dul dégg koku da ngay daw fofu lañuy wax nan bokku na ci barab yi nga xane bo doon iliman dañuy bëgg nga wutal moy xëccël kenn ci maamoom yi mu ñëw sa place yow nga dagg sa julli dem xet li ju gone boo ko seetaanee ba mu tàbbi ca pax ma yàqu rey kon ci lislaam ku mën a xettali nit te xettali woo ko bu faatoo yow maanaam bu ñuy laaj ndàmpaay dee yi ñuy laaj daan ko laaj loolu ci fonk gu lislaam fonk nit ci la bokk bokk yi ku mën a xettali nit da ko war a xettali waaye romb ni muy daanu ci pax nga ne sama yoon nekkuti moom te man koo dimbali bàyyi ko ba mu faatu ñu teg daan tegloo moo tax ñuy wax sax ne boo gasam ci mbedd am pax foo xam ne wari sufa gas ku ci daanu yaa ko rey yi ñuy laaj ci ku rey nit yow lañ koy laaj loolu nit ñi war nañ koo xam gaskati foos yi ci mbedd yi war nañu bàyyi xel loolu oto bu ci daanu nit faatu ci yaa war a joxe dee ndax yaa sabablu seenu faatu kon nag ku mën a xettali nit xettaliwu ko bu faatoo am nga masuulee ci faatoo kon kuy julli bu lu mel noonu amee daggal julli gi dem xettali bakkan bi ndax xeet li bakkan day faat te julliwaat du faat xam naa dese na ma leer dëgg-dëgg nu bor yi demee waaye li mu nuru mooy dafa mel ne président xam nga doon nit diw sàngam bu lebee moom moom la engagé mais président dëkk sàngam nag bu lewee ci tur réew ma la leb ci wàllu diplomatie dañuy wax ne dañuy xàjjale fi ne boo doon bind lettre ne président diw ak nga ne diw président ñaari lettre yi bokkuñ fu ñu jëm parce que président palgi la mën naa ba a tudd aw tur su boobaa lu ñu jaarale ci moom doon gi mu doon président moo tax kon ji tur réew mi la te daa mel ni sax noonu la nit ñi dox ndax ñaare nguur yi buy soppiku relation yi ak bor yi amoon dafay des moom nga xam ne président bu mën a ñëwit bor yaa ngi fekk da ko war a fay kon ab président moo ko moo ko leb ci tur réew mi kon ku ñëw di président yaa ko wuut ci barab ba waaye yaa wuutuwaale kon bor yi loolu nag bokkut ak nga lekk ci sa tur bopp njiiti réew yi bu ñuy leb ci seen tur ñoom diw sàngam ñooy leb waaye président fulaan mooy leb kon ci turu réew mi la leb yàlla nag yàlla na yàlla dogal mu leb ko dóoru ci réew mi waaye bu ko lebee leb ko nag tooñ na aw xeetam waaye réew mi fay ndax ci tur réew mi la ko leb yàlla na yàlla daf leen ñu jub bu ñu lebee def ko ci réew mi nag. jàpp laab gu ndaw la sangu janaaba di laab gu mag laab bu mag day ëmb gu ndaw nit ki bu doon sangu janaaba yéene ca toj mu mag bu noppee set dañoo sopp nag ci biir cangaay li mu jiital raxas ciri bu sangoo ba nopp ci dëfu fii lu toj ko ndax toj mu ndaw bi dugg na ci biir toj mu mag bi bi mu laabee ci toj mu mag rek laabaale na toj mu ndaw kon donte cangaay li amul jàpp waaye raxas na li mu war a raxas lépp ba mu set yóbbaale na toj ma ndaw waaye dañoo sopp nag ci biir cangu nga jiital njàpp ci cëri njàpp yi dañoo am worma nga jiital leen door àggale sa sam sangu waaye boo sangoon ba noppi nag laal sa cër boo xam ne day toj njàpp wala nga def luy toj njàpp subaa nag cangaay la baax na moom waaye faw nga jàppaat nag door a a julli ginnaaw ba nag mu xam ne ba mu yokk fekk na gis na leer moom ba mu yokk mu ci rek waaye xamu ko mu fas mu def ne yàlla fayee yéeneem de dana ko bindal bàkkaar mooy dafa amoon yéene yàqu kooram yàlla dogalu ndax moom jàppoon na ne mi ci koor kon fas yéene yàqu koor ndekete nekkul ci koor kon yàqul koor waaye am na yéene yi daf na yéene yi ku yàqu koor te nag jëf yéene moom lu am solo ci nit la innamal a'maalu binniyaat kon mën na jàpp dana am bàkkaaru ku dog koor te tey doonte dugul koor kon ay ay kafaara yooyu du ca war ndax dugut koor koor gi koor néew fóon waaye bàkkaaru bu yàqu koor dana ko am ndax loolu la yéene ma te innamal a'maalu binniyaat waaw bu dee njëkk woor day sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa lim daan woor ci Shaabaan daaw ko woor ci yeneen weer yi sax na it ne daan na ko woor ba mu jeex mu jokkale ko ak Ramadaan soxna Aysa mas na ko laaj ne ko. gis naa li ngay woor ci ci chaban doo ko woor ci yeneen weer yi mu ne waaw weer la boo xam ne mi ngi nekk diggante ramadan ak rajab nit ñi dañ ko sàkk kon daan fonkoon na ko ndax nag da ci jublu woon waajale ko ramadan wala jublu ko moom daal nee na weer la boo xam ne ci la ñuy yëkkati jëfi jaam yi di ko yóbbu ci yàlla shahrun turfahu fihi al amalu ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfaa amali wa ana saib kon daan na ko woor ba mu jeex mu jog ko lekk ramadan daan na ko woor ba mu des tuuti mu dog waajal ramadan moo santaane yépp ne bu ramadan jeexee ku ci teg juróom benn fan ginnaaw boo ramadan nga teg ko ci weeru shawal am nga yoolu mel na nga ne ku woor ak mel na ne moo santaane daan na woor njëkk Shaabaan xemmem loo ko nit ñi waaye ci shawaal it daan na santaane ñu woor juróom benn fan kon bu fekkee loolu lañ jublu ci gunge gàttandu loolu sax na bu wër-wër ci sunna waaw boo ko doon tënk de da wax ne juri kër yi moom lekk leen dagan ci sàttum ñu di leen dañ ko xamee juri kër yi mooy gëléem ak nag ak gàtt gàtt mooy xarab bay yooyu la ñuy tudde juri kër naka noonu xayawaan yi nekk ci géej lépp lu dund ci biir géej nu mën a mel lekk ko dagan loolu mooy masabu imam Malik naka noonu picc yëpp liy naaw yi naaw yëpp yëpp lekk leen dagan ci masabu Malik moom euh, ahadis yi wax ne dañuy araamal kullu zi mixlab ak nangam yooyu da ko weddi mu imam Malik wax ne tuyóor yëpp la yëpp dagan rabi àll yi nga xam ne dañoo dëkk ci àll bi te duñ fàdd duñ lekk yàpp yu ci dul yi ab yax rot ci aramal ko yu dagan lañ lu mel ne kéwél yeeg ñoom seen yu mel noonu ak nag li ñuy tuddee xashaatul ardi yi dox ci suuf sax yeeg jiit yeeg gunóor yeeg yooyu yëpp yu dagan lañ ak socce bi ku ci am aajo bu ñëwatee mën nga ko jariñoo euh, yi araam nag maam xuuxa ci jiitu ndax yàqub alxuraan moo ko araamal foofu nag dinaa bàyyiloo xel mbokk yi ne ngara ngara mbaam xuuxa xinziir waxshi la tudd wala xinziir barri borom téere tafsir yi sax dañoo saxal ne xinziir bi alxuraan di wax mooy xinziir boobu ne ci àll bi waaye xinziir yi ne ci kër yi amutoon ci arab yi jamono yi alxuraan di kon yàpp mbaam xoox wi ñu araamal mooy xinsiir boobu léeg-léeg nag njuumte da ci am ñu di ko tudde mbaam àll mbaam àll moom lekk ko dagan waaye ngara du mbaam mbaam àll aw rab la woo xam ne am ay rëdd diggante fas ak mbaam lay nekk ni xaw a nurul te am ay rëdd yu bari gëw mu ne bari na Sénégal kuy seetaan yenn documentaire yi dama ci gis loolu moo tudd mbaam àll moom lekk ko dagan waaye ngaram mbaam xoox ku ko lekk lekk na mbaam xur bàyyi xel yooyu naka noonu mbaam kër yii dafa xaram ca xaybar la yonent ay salaam ne araamal mbaami kër yépp ak baax la yi am na ñu ne fas boole woon na ko ci am na ñu ne da ko ci settee moo tax ci mësab bi wuute da ci am ci fas waaye liñ liñ jàpp fii moom mooy dafa xaram donte am na ci biir ngër mi ñu wax ne fas dagar na moom ndax da ko settee woon ci waraamal kon mbaam kër yi dafa xaram mbaam xooxu dafa xaraam yi ci dëkk ci àll ba ak yéene ci kër yi naka noonu meddu lépp lu am dara lépp loo xam ne boo ko rendi war mu naaj su meddee arab comme juri kër yi ñu waxoon léegi buñ ko rendee lay lay làpp waaye bu xasee medd arab bu dee rabi àll yi nga xam ne nag dañoo ne ci àll bi di fàdde moom dañu ne ñoom gayndeek bu keek till ak ñoom seen dañu ne sib ñoom ku leen lekk loolu mooy li nga xam ne ci tënk téere yi jàngale nañ ko ci am waaye lu mën a xew ak jullit wërta jëfandikoo mbir te gëstu ko ba xam daganal dëggalal aw ñam moo ci yees lekk loo xam ne bu xasee tàbbi mënatut a génn war ngaa gëstu ba mu leer bala mu tàbbi allahu taala alam koo ne dafa bidal fekk bopp su bees mu ne ndax mën naa koy ñaareel am na ci fuqaa ñu ko wax danañ indi sax ay ahadis yu mel ne day dëgëral loolu waaye ci masa bi ñoom dañuy wax ne farata boo ko amee doo naafila ginnaaw waru farata la fayal farata ji su waxtu naafila jotee nga fay ñaar rakkay fajar masal ku yeewu te sant jant di fenk foofu dañuy tere ku naafila waaye terewuñ fa ku fay farata kon jullil farata bu jant fenkee ba yëkkati nga fay ñaar rakay fajar ndax ñaar rakay fajar dañuy wax ni mom rek ci naafile yi mom lañuy fay mom gis nga ko fay ba tisbar jot fi ak tisbar jotul sa yoo ko fàttali ko man nga ko fay bu tisbar xasse jot nag fàtt ci ma sa am mari dañuy wax ne cian bu mu yes rubu dinar rubu dinar dañuy wax ne bu mu ko yées ab dinaar nag boroom xam-xam yi nee nañu quatre virgule vingt cinq gramme ci or maanaam ñeenti gramme la ak quart léegi loolu boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ngay am ak fumun kon benn gramme or ak fumun moo tolloog lu bon dinaar day mel ne kon barab bu nekk loolu lañu war a xool lu mu tollool ci xaalis loolu nag boo ko xool na fi ci Sénégal gën jaa néew dana mat vingt-deux mille bu ñu ne gramme or ci gën a néew vingt mille francs lay jar kon vingt deux mille francs vingt deux mille cinq mooy doon aqallu sadaq loolu nag lu ma ta bàyyi xel mbokk yi la ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jamono yi muy wax ne cen bu mu weesu téeméer ak juróom fukk mbaa ñaar téeméer booba dafa xayma woon rubon dinaar walla ñett dërëm góor dañ daan wax mu tolloog loolu bu joxe ci ndigal na bu kenn weesu ñaar téeméer ne booba ñetti dërëm la nit ñi doon wax ci téere yi waaye dërëm yañ doon wax ak dërëm yi mu doon wax jamono wuute nañ mu xool xiima ja ba def ko téeméeri juróom fukk ak ñaar loolu jamono Cheikh Mamadou Fadil ñëw xayma woon ko ne ñetti junne la tax ñu daan joxe ñetti junne sëñ Abdou Lahad boole ñaari ling yi ñaar téeméer ak ñetti junne yi sëñ Fàllu mooy seize mille waaye nañu bàyyi xel ne loolu mag ñu ngi defoon jot nañu defaat ko ñetti jooni ak ñaar téeméer matutul fi mu ne nii rubon dinaar te dañuy wax ci mazhab Malik ab sëy wari su ko fas ci lu yesu rubon dinaar lolou wat bàyyi xel wallahu taala alam fii lay laaj mu ne lan moy kon ndax dagal na ci ñu jigéen muy jëfandikoo ay doom ñuy tax bu sey ñu ñu ko yàqal ci wéro bu fekkee ne lor nekk ci dagal nak waye nak gënu bu fekkee ne amul lor loolu médecins yi ñooy xam ma xam jëfandikoo doom yooyu ngir bañ regalam génn loro ngi ci war nekk bu ci lor nekkee dagan bu ci lor nekkul nag dagan waaye jigéen na xam ne gis baax du gàcca du bàkkaar yàlla ko nettoo jaam bi kon bu bàyyi woon boppam rek ni ko yàlla bindee saa bu gisee baax xam ne ki ko woorloo woon moo ko dogloo bu jàllee mu fay loolu mooy li gën waaye xëy na nag bu tàyyee fay ba tax mu ne naa ànd ak nit ñi woor bu fekkee ne doom yi du ko wàññi dara ci wér-gu-yaramam du yàq dara ci alalam subaa nag dara nekk naka noonu ñi nga xam ne bu ñu aji màkk dañ koy jëfandikoo ngir bañ gis regal muy tardeel seen kaay loolu la ci fuqaa yu wax bu amul gàllankoor ci wér-gu-yaram ba mu yàqal la loo xam ne jëru ko suba baax waaye nag dafa bàyyi woon sa bopp ak yàlla moo gën naafila nag li ci gën mooy julli ko yow kenn dañuy wax ne bu fekkee tëjuñ jàkk yi ki am pasteef man alxuraan wala sax am ci mu ci man mu naafila ko ci këram moo gën mu defee ko ci jàkk waaye nag bëgguñ ñu tëj jàkk yi kon li ñu bëgg wax foofu mooy ñi nga xam ne mënuñoo naafilal seen bopp ñoom ñoo war dem ci jàkk yi ànd ak iliman iliman jiite leen ñu naafila waaye ñi mën a naafilal seen bopp nañ dem ci seeni i kër naafila loolu mooy li ñu waaye nag ñu bàyyi xel ne naafila gi jotewut ak jàmm koor koor la naafila geneen jàmm nit ki bu waree man naa am tiyaabay koor yam ci waaye naafila leneen la dañoo sopp lool nag ci biir ramadaan naafila waaye ñu bàyyi xel ne Sëriñ Tuubaa moom radiyallaahu yu jox ay taalibeem naafila yooyu ñu def ci koor dañ koo sant nit ki bu wooree bu wóor taalibeem Sëriñ Tuubaa bu dëggu di jëfandikoo wér de guddi gu jot dana naafila fukki rakkaal ak sawa bi tam ndax ci sarti wér de la kon bu ramadaan ak bu ramadaan dafe ko sa kër moo gën bu fekkee ne am nañu ne ci jàkka ji bu fekkee na yow boo demul jàkka ji kenn du dem yow da war dem jàkka ji jiitu nit ñi ànd ñu allahu taala maa ngi lay sant ci ànd gi ñu àndoon di ñaan suñu boom ko yàgg ñu ko boole di mbokk nuyu mbokk mbokk yi nga xam ne yépp ñu ngi doon taataan di ñaan suñu boroom defal ñu tawféex lu ci nekk ci njuum dañu xam ne doomu aadama moo bindoo noonu waaye aaya bi ñu waxoon la ñuy wax in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala